Conseil sénégalais des chargeurs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 association bi ñoo ngi koy dund wax na ne rédaction yi tamit joxuñu sérieux journalistes nga xam ne ñooy traité ci lu jëm ci wàllum culture wax na tamit lan moo tax nekkul ci rédaction yi ba tey ci biir yéen kay gi de las Vox Populi Sud Quotidien xëy ci PDS ak seen njaayum carte mi nga xam ne démb la ñu doon def lancement bi waaye kenn xamul lan lay niru sëful xorom sëful sukkar maanaam si ak pëccëxoo gu rëy sa la mujj ak tibbante tànk xeex ak saaganteeg defante ñoom libéraux yi yéen kay gi nee na ñi nga xam ne ñooy ay farandoy baaragaye ñoom si boppam ñooy yàq xew Gueye ay farandoom dañoo gis ne dañu ko commencé beddi ci PDS yéenekaay gi di L'As nee na Bara Gueye jamono ji fipp na ngir nag janoo ak ñi nga xam ne ñooy wàdd wàdd yi yéenekaay gi nee na en tout cas li amba desal mooy njaayum carte mi nga xam ne PDS démb commencé woon nañ ko ndaje ma dafa yàqu yéenekaay gi di Walf Fadjri ñu fekk fa Abdoulaye Khouma nekk ci parti bii di APR dëkk ci Kaolack nee na kàddu yi nga xam ne député Aline Dembourou Sow yëkkati na ko mu nekk kàddu yoo xam ne kàddu yu ñaaw la waaye moom jàpp na ne Abdoulaye Daouda Diallo moo ko sant kàddu yooyu moo nekk ca ginnaaw kàddu ya gi di Sud Quotidien nee na ci réewum Sénégal li ñu fiy dégg ay doxalin ak i jëfin ak i waxin yoo xam ne maanaam lu yàq démocratie la loo xam ne méngoowul ak réew moo xam ne nee nañu réewum démocratie la ndax ci Sénégal rek la ñuy gisee maanaam nit wax ba mu neex mu ne maa waxoon waxee rawatina kilifa yi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi ak justice boo xamante ni ku ma mu am nday ak ku ma mu amul nday ñuy gis tamit violation caractère personnel mi mu génn na ko salfaañe ko ci mbedd mi yéen kaay gi wax ci wàllum politique ak wàllum boddakante ci wàllum xeet wàllum waaso loole lépp gis nañu ko ci réew mi waaye nag ñi nga xam ne ñoom ŋànk réew mi ñoom wàllum loi seen yoon nekku si ay hors la loi lañ yéen kay gi di Sud Quotidien moo ci xëy ne Sénégal bëri na ay doxalin yoo xam ne méngoowul ak réew muy woote démocratie yéen kay gi di enquête na jëye am na ndax ak gaal moo tëmb ci waaxu Mauritanie yi ña faatu ña sa ëpp ay doomu réewum Sénégal lañ yéen kay gi di Le Quotidien xëy di ñu xamal nañu Souleymane Teliko mi jiite magistrat Sénégal Sall dañoo jàppoon ne altine bi ñu dëgmal la ñu koy déglu sa diwaanu Ziguinchor waaye nag dañu ko mujj dàq yéenekaay gi du Source A ne dàq nañ ko ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre maanaam mboolem ñi nga xam ne ay magistrat lañ ci biir réew mi di Sénégal ak waa bitim réew ñoom ñëpp ñoo ngi teel tànk Souleymane ko lu jëm ci wàllum nii niilal bor bi nga xam ne réewu Afrique yi daan nañu koy amee ñi nga xam ne ay député la nekk ci déndu Afrique jamono ji nag soobu nañ sa xeex ba waaye nag journal bi nee na mission impossible la ndax ni nekkul mbir moo xam ne da ngay ñëw rek mu yomb yéen kaay gii de la turbine nee na diggante jeemati fal ak journaliste bi di Yakham mbay seen diggante yomb la maanaam sax seen piccoo ak seen mbaaloo gi tas na ñi nga xam ne ñoo nekk ci sandikaay yi ndax bëri na ay sandikaay yoo xam ne dañoo jàppale jeemati fal waaye nag am na tamit ay syndicat yu jàppale Yakham Mbaye am na ay syndicat yoo xam ne jàpp nañu ne correct ni mu doxale ak seen pix teguñu ko fenn yéen gi nee na démb ca Tiwaawoon pël mbir mi tàngoon na jër diggante gendarme yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu daaneel seen i kër am na lu ëpp fukki nit yoo xam ne laas nee na teg nañu leen loxo yéen kaay gii di Vox Populi Aïda Diallo nee na bu ko kenn wooweeti ab sëriñ nañu koy woowee taalibe Cheikh Béthio Thioune lii quotidien nee na Cellou Dalein Diallo mi nga xam ne jamono ji bokk na si ñi gën a taxaw ci élection présidentielle yi war a xew niki suba ci Guinée Conakry ndax nag heuram jotul ngir mu yore réew ma yéen kaay gii di réew mi quotidien nee na sa Côte d'Ivoire foofee tamit ñoo nga fay waajal ay waaye mbir ma pëcc xoona loola ndax am na si ñu bari ñoo xam ne ñoo ngi woote ak boycott ne ci coronavirus bi nga xam ne amee woon na ko nee na mbir mi doyoon na waar metti woon na lool ci mooma stade yéen kaay nee na tey jii am na ñetti mat match yoo xam ne maanaam yu metti lay doon diggante Everton ak Liverpool Manchester City Arsenal Inter de Milan Milan yéen kaay gii di sunu làmb Gaston Mbengue nee na gëmul ne ab fédération danañu ko fi teg ngir mu yore lamb ji li mu gëm daal mooy Matar Ba dana fi andi ab comité ginnaaw loolu yéen kaay gi nee na Bombardier dana war a bëriwaat ak Balla Gaye numéro 2 te xam ngeen ne bomb daanoon na ko est-ce que dina ñëw def dóor